yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. ngeen jëf coronavirus gi mel ni fi tugg mbër sànni ci réew mi l'observateur nee nañu moo togg fitna état bu Sénégal ubbil yéenekaay bi yëf yi di covid 19 gi mi ngi law loolook loolo ci Sénégal ndax ci week bi ñu génn rek mu di gaaw ak dibéer bi yéenekaay bi nee nañu dégg nañu ci réew mi juróom-ñetti nit yu mbas mi rey ci Sénégal l'observateur ne ñu it lu aju ci jaaxle goo xamante ne ji wopp gi jaaxal na ko kilifa yi moo waral ba ministre de la santé di Abdoulaye jot jot na ndax liy ram mi ci feebar bi bu ñu ci jugul dana jëm ba yegg ca ñeg ba te bu fa yeggee musiba la fay jur ndax ci diiru fukki fan kot am nañu ci réew mi ñaar fukki nit ak ñeent yu ñàkk seen bakkan ndax coronavirus bi dégg fiit junni ka ak juróom-ñeent fukk ak ñett kàddu ministre ba woon di Mbagnick Ndiaye ci xët njëkk journalisé ko muy xamle ne couvre-feu mënatut a ñàkk ci réew mi bu ñu bëggee kar corona bi docteur Abdoulaye Boussa moom it di yëglu ci journal bi bay dëggal ne deuxième vague gi ñuy laam-laamee lu xamle ne bu yeboo ñu waajal ndax waxuma la deuxième vague waaye troisième vague ba quatrième vague sax mën naa am li am ci vaccin anti covid bi latir bi nee ñu du neex a lijjanti ndax donte am na ay kàngam yu jàpp ne vaccin bi rek moo ñu mën a xitili ci covid 19 bi terewul suñu réew am na ñoo xamante ne ji nee nañu bëgg ñu mu doon ko bàyyi ci vaccin bi maanaam ñu bàyyi ñuy essayé piqûre bi ci aw askanam suur soi nañu mbir yaa ngi bëgg a gën a jaxasoo nag ndax dafa rax ci 48 heures maanaam ñoo ngi wax juróom nit yu mbas mi faat wax ñaar fukki kaa garaw ak juróom benn ci la ñu la laboratoire yi ci réew mi jóg jatu docteur El Hadji Mamadou Ndiaye directeur de la prévention di xamal waa suur suwaane xeetu virus googee ñuy laam-laame bala ñu ci mën a wax dara faaw dañu koy gëstu ba am ci ay xibaar yu gën a yaatu laas yéene kaay xëy yaatal yëf yi ba mu yegg ci président Macky Sall moom président de la république laas yéene kaay ne nañu kenn gënu ko waaru gudd yu ñu toll li ko waar moo di dogal yi nga xam ne ministre de l'intérieur Antoine Félix ba mu nar lu ci mën di xew journal L'As nee nañu moom Macky Sall askan waa ngi koy déglu askan wa ca ngajaga ak tiitaangeel moo leen yee keroog samedi Le Quotidien nañoo tey ni gas ya fa benn ba moo kalaate a yokk joote ji nag moo di amuñoon ay matuwaay yu ñu mënoon a faye lakk ga Vox Populi nañu ca noota guy jamaa ga ca kees fa la jëye ja amee woon askan wa ngajaga tiit gu ñu tiit moo tax fi mu nekk ni kenn ci ñoom nangu tuta dëgg sa tànk ca barab ba mbaa boog ko wër anki dina kay dolli ñu ci ne askanu ga li ñuy ragal moo di la am lu ko raw amaat fa ne bu yàggul rek ñoom askano jugoon nañu doon ñaxtoo ko jëme ci Fortesa di ñi nga xam ne ñoo fa samp teeni gaz ya teeni gaz ba kalaate keroog ca ngajaga yéenekaay bi xëy xamal ne am na kenn ku ca jëlee ay gaañu-gaañu am na it ay machines yu bari yu fa yàqu li ñu doon laam-laamee ndax dafa far yàqu am déet mu di dialogue national bi ki ñu ko dénk di Famara Ibrahima Sagna mi ngi leeral ci soleil national foo yëf ya toll président Macky Sall mi nasoon xalaatub dialogue national bi Sud du am pexe moo xam wax ci rakk ji Aliou média fa la waxee ne ànd na ci ñu jëlee fi ville bu ndakaaru leeral na it fa mu teg xalaatam boobee la Sénégal nañu moom Aliou Sall wax na it ne mooy patron bu Géejawaay leneen lu mu wax moom Aliou Sall maire bu Géejawaay président association des maires du Sénégal te waxee ko ci Grand Sud ci rajo Futurs Médias mooy naqar woo xam ne amee na ko ci li ñu bëgg a jël mbokk gi mu bokk ak Macky Sall bëgg koo def déli déli bu kenn du laam-laamee moo nekk ci xët libération foowukaay yi ñuy jaabajonge ci réew mi te ñu ne foowukaay la yoo xamante ne ji dafa am tàngal bu rax sàngara naar bi ko dugal ci réew mi Ousam Khalil la tudd nee na juróom fukki carton la dugal ci réew mi bu ci nekk 22000 la ko jënde woon carton bu ci nekk it 600 bloc moo ca nekk Ousam Xalil ne moom ab jullit la bu njoxtoon ne tàngalew yooyee sàngara da caa rax du ko dugal ci réew mi ba naan mi ngi koy jaay mu ne bi mu koy dugal ci réew mi àndut ak benn këyit ndax fournisseur am benn doomu Guinée la bu tudd ba moo nekk ci Guinée moo koy jaarale bi ba indil ko ko Sénégal